alhamdulillah salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di sant yàlla ci jotaay bi di gërëm ñu jiital kàddu di gërëm ñi nga xam joxe ko nañ dëkk bu dëkk ñu fekk lañu jotaay bi nga xam dëgg-dëgg bëgg bàyyi ñes ñu yaay sa mbago ak délégation am ak mu jot mu ñëw bokk ko ñun kon loolu ñu ci bu baax di leen wax dimbali ñuy gërëm tamit ñi jël kàddu ñëpp ak di gërëm suñu sang bi fi jógee woo muy saydatu roqiya nga xam ne macha allah taaral na suñ bés te itam sikk ne ah sant yàlla soxla yëpp faju na di gërëm tamit ñu jiital kàddu di gërëm suñ àndandoor suñ bokk ci yàlla suñ lépp nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Tidiane wutu nañu ci conférence sànq loo xam ne dëgg-dëgg du ñëpp ñoo ko man waaye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla dool li yokk ko bu baax ndax jafe na ci jamono ji conférence boo xam ne ñu réew la dara dangaa toog rek di wax loolu nag bàyyi ñes sore bi nga xam toggam la moo tax ay ndamam dëgg sotti ne kon loolu ñu koy gërëmee bàyyi di gërëm mboolem ko toog ci jotaay bi di nuyu imaam di nuyu borom dëkk bi di gërëm suñ gàmmukat bi Cheikh Abdoulaye Dramé dëgg-dëgg ku bëgg a dégg siira dégg nga ko ku bëgg a dégg tamit siira ci loxatul arabiya dégg nga ko ndax yaakaar naa ne lim wax ci euh, lim wax ci mawlid bi nga xam ne bàyyi moo ko bind dëgg-dëgg loolu mooy gàmmu ci loxatul arabiya yamut ca mu defaat laamee bi nga xam ne firi na ko ci anam boo xam ne alhamdulilah man dëgg-dëgg su ñëpp sant yàlla it man war naa sant yàlla ndax bi ma toogee fii suma ma noppiwu foog naa noppi fi toogoon du dégg nit xam nañ ne dégg nañ xam-xam dégg nañ ñoo xam ne dëgg-dëgg ay nitu font duñ di caaxaan te dagg nañ ay kilomètres yu bëri teew si fii ci seedo loola rek doy na kon ñu ngi sant yàlla jotaay bi nag yàlla rek ko waral yàlla it ñun bu ko waralee ci kër Baye Niass ci Baye rek laa ni ma ko waree kon ñu ngi sant yàlla ci loolu waaye nag ñu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko suñu wëllare waxee Cheikh Abdalaay ndax gàmmoon nañu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne dëgg-dëgg moom miin ci bind miin ko tamit ci mboolem koo xam ne yaa ngi jox dëgg-dëgg meloo ku jiitu bi yonent bi yaa ngi janoog moom de meloo waa taxoon Abul Abbas al-Marsi naan waxtu ma xoolee gis ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jullit yi meloo moo taxoon mboolem kuy def ay dog xàgg ci daraja yu rek de waaye ñun nag soriwuñ ci bàññe sara yonent yi gisul bokk nañ ci jullit yi waaye xam nga ne taalibe baay sa xoolee gis ko gëmmee gis ko de moom xamul muy xool xamul muy gëmmu loolu ca melawañ def ci moom la kon loolu na nag danañ ko gërëmee baay danañ wax jërëjëfee baay ñas mi ñu may loolu de kooku nag boo ko sante it kat def rek li la waaye yàlla ko njëkk a yàlla moo njëkk a wax ne Ibrahima bokkut ci ah bokkaale kër yi bidiw yi ne asa rabbi joxoñ weer wi ne asa rabbi joxoñ jant bi ne asa rabbi kooku jeex na ca meloo ñettee de mooy melo yi nga xam ne ci la bàyyi yëgal aarif yi wala ci la yëgal subi ñu war a dox nag ci aarif buñ doxee jëm ci aarif nañ dox bi rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa jannati nafsu bobu nak baña na man la man la ana nafsu ala fa ko mako firi de ku jotut ci melo wu do mëna ag ci melo yi ñi wax de mané ibrahima mom nak mom mo kan, joxañol ñett yu yépp wax leen dem roy moy boromam lam ci jullu moy yalla ya, de te yalla wax na de ibrahima bokut ci bokale kër yi ji ma jang ci saru eh, anham firi ko de ndax neena watil kër ni moy lay eh, tilka lii ñu bëgg laay wax hujjatuna yàlla gis nga tamit li ci àlla aw la dellu wa tilka lii aw misaal la wala aw la mooy hujjatuna suñu lay la de lii daal suñu aw lay la woo xam ne ah tey naa jox nañ ko gis nga jox gi yàlla ba tey mu ngi ci dugal boppam de jël na mboolem la ngi péem utilisé ko ngir may Ibrahima moo tax dem ngir ju mbooloo la waa Ibrahima mat na ci matuwaayam defewu ko dara waaye ala qawmihi jëmale ne ko ci aw nitam waaye dëgg-dëgg ay taalibeem lañ moo tax bàyyi ay nitam dëgg-dëgg jox na leen hikmal baaliqa bi nga xam ne moom la Sufyaan ko andak ak baay rek yang ci maaya saaw googu su ton yalla do andak mom moom de moo tax mu ne yàlla nar fa darajaati mu dara jaay dara je nga xamne yalla yàlla mu yëkkati ko yalla ko yëkkati ko waye nak man na saw dara jaay ki ma neex rek man maa yëkkati moo tax mu dara jaay yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nga xamne mo len yonenti yi yonenti yonent bi lañ alayhi salaatu wasalaam mu jaay mo ra cheikh ahmad tidiane ba nga xamne kep ko ku soxla woon nag moolaay naan de kadamay ya, ne atay mo ko jangale sama ñaari tanki jogi ko nuyu kenn du naan lu mooy maa la naan dal mu yëkk dara jooju de waaye mu yëkk dara jaay baay mi nga xam ne nag moom dëgg dëgg ci yëkkati gëm ngi ci laay taalibe bi mu yëkkati ko loolu way yëkk ak way mujj amuñ ko woon ci seen i taalibe de waaye nag baay moom radiyallaahu anhu mboolem taalibe yi ko topp dëgg dëgg seen ah, lay leer na nañ ci yàlla ndax layal na leen yàlla xamal leen kan mooy yàlla waaye mu ci nag doxal na leen xamal na de moo tax mu ne alfatu baabul maarifati walaakin laysa lil maarifa de fatu yi mooy buntab yàlla bi waaye wala wala lu mën a am daal bëriwul ci alquran laa ilaha illa anta it foog naa ne bëriwul ca yonent yàlla yoonu sunu dikk laa ilaha illa anna moom tamit boo demee ay yoon bu dee ñaar wala ñett rombut ko de mooy ci suuru taa ba yàlla wax di wax yonent yàlla Musa inna ko suutee waxuma ko kon lépp lu ñuy wax dugg Medina danaa gis ñuy woy ay woyu arab di tëgg ay juñ juñ juñ di tëgg important to you. bopp dëgëre jooju moo tax loolu koy firi alquran ak wax de alquran moo joxe yonent bi te xam ngeen ne mooy nabi mooy xaatimi nabi na mooy imaam tudd ci wilaayatu ahmad la tudd ci xilaafatu nag lu mu tudd lu mu tudd lu mu tudd ci xilaafa xam ngeen ne de baay radiyallahu anhu muhammadun rasulullahi demal wala sinamaahu asidaau ala alkufaari ruhamaau baynahum darahum rukuan sujadan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim moo lay wax ne meloo taale bi baay la min asri sujud salika masalum fi naa ci mboolem bibliothèque yi gisuma mm, hadis yi laaj naa borom xam-xamu hadis yëpp ba ci Madinatu Munawwara ñu ne hadis yi lu wér la yonent ak wax kooku bàyyi la mooy indi lu xewi lu ñëpp fàtte woon moo xewal ko ba ñëpp xàmmee ko ne léegi nii lañ doon wër. او في شر والقلب فانفلت الى مكه الى لزم الزاي ولملا وهين يوم هين محمد سرافره في هيكل وروعي غاي توبتي هين محمد باي هتي سرافره ني تخاو لو تخ ني تخاو وري هنا تخاو كا سر موي مد لب دي باس لب خام خام تكل خام كو نيك تي ياو تي ورنا لا لي بوغي ياو moo tax sarasiruhu mbootam yonent timi ak asaaram rañaan na ci jëmmam ji moom bàyyi radiyallahu anhu ñu ne ko ndax nag dafa am mu ne fii haykali ci sama bind bi sax waruwaa yi ak li nga mënta gis ci man yëpp yonent bi alayhi salaatu moo fa rogaat feneen yoon mu ne la yow mi bëgg Cheikh fi ci buntu barhama nga ko yàlla tudd na ko yàlla mu ne bi yéen ñi nekk na ca téetam la malakuutu kullu shay'in nguur ak lépp lu nekk rek moo tax mu ne araakumu mulukal aadi gis naa leen ngeen di buuru suuf mu abal ma ko abal ko ca saali ma abal ko usaa bu usaa ne tëll nga ne kii buur la moo tax taal bi muy ñooy buuru suuf ndax taaree nettali na ne baay yaayam dafa ñëw ne ko hey Ibra ñëw de ñëpp ak naan baay baay baay waaw man nag lu maay wax te man maay sa yaay mu ne ko waxal li nit ñee wax parce que kooku moo jur sax moom la ñu jox ma ne doomu aadama ñaata baaraam la am ci ay loxoom ne ma fukk ñaata baaraam la am ci suuf tànk yi ne ma fukk soo leen boolee muy ñaar fukk jub la war hëdi ñu nëppal leen nag ba ba sëlal leen ba du kii moo doon yonent bi moo tax ngay dund moo tax yi fee ñëw ne ko he yonent dañ lay laaj yasalunaka ani ruuhu dañ lay laaj ruuhu ne tuub li ngay laaj du ne ko tontu leen lan la laaj min amri rabbi roobu mbiram borom bi la yàlla ne joxuma ci xam-xam lu mooy lu tuuti parce que mbir nit boo ko laajee muutam du la ko waxal parce que day fekk kenn la ko war a wax te na ko bàyyi la ko war a wax moo tax bàyyi rek a mën a jël roobu xëcc ko yóbbu ci yàlla foofu danañ taxaw tuuti nañ doon benn suñ sëriñ la mënuñ ko séddoo mooy bàyyi waaye ana lu tax su Oustaz Aji Ndaw ne fii ma ne ah Oustaz Aji Ndaw kat faam ay taalibe Baye Samba ne fii ma ne ah Baye Samba faam ay taalibe déedéet xam-xam lañ toppee Baye ñun ñëpp ñoo bokk seedo nañ daje ci pénc mi su ma weedoo suma kër su fekkee ci ñi la ñuy sànqal laa wala mbaxalu saaru laa baax su fekkee soos laa baax waaye bu ñëwee ci pénc mi daal. moom nag yaa xam dépense boo joxe waaye fexeel mu nekk dépense su alhamdulilah xam nga lu tax alhamdulilah boo jaay ci biir lu dul jeex nag yàlla ñu ko yàlla may loolay bàyyi léegi nag ma ne wax naa léegi ci biir yooyu mooy ñeenti laaya yonent bi wax naa ko léegi ñeenti aaya la lu yu yàlla tudd yonent yàlla Muhammad ci turam am na juróom bi juróom ba nag fa la ñeenti laa yëpp dajee waaye déclaration la loolu mooy xabru bi bàyyi di wax ne bu buddir ko keram ñu xam man may kan mooy lan laxee saa waxoon wa mubasiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad maa ngi lay bégal ci yonente bu ñëw suma gannaaw gannaaw nag gannaaw waa ji seetaan xeesa ba pare yawaare waxuma nag ku déggul xeesa ku déggul li ñuy wax gaa yi seen leen ko Insa lu mu waxoon Cheikh Abdallah ci suuratu Maryam fu mu dal waxut maa di yàlla de waxut maa di yónent waxut maa di Cheikh Tidiane waxut maa di maa di yónent bi waxut maa di yónent bi yàlla daf ne inni Abdullahi loolu la wax de Insa moomu nag moo ne kon ci maqaamam Abdullahi la taxaw xam ne fa yónent yàlla Muhammad ci démbi démbam ne inni Abdullahi lii du mën a ne waaye nag boo demee ca kër yonent kat li ma la wax nga fekk la yonent bi doomam yu góor yi ñaata la ñett kese Abdoulaye Xaasi ah bàyyi mu waxoon na Ibrahima ne ko moom ci ñun la bokk ndax ci kër boo ko jur wax na dëgg booba bàyyi la ñett yi feeñ nañ ci yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad réeral leen ci boppam buy feeñaatoo nag ci addina nag kenn du leen xàmme waaye nag fekk bàyyi nag mooy Ibrahima. moo tax ni mu ko xamee kenn xamul xam ngeen nekk nit bay xam baayam baay nit xamee yow nit kenn xamee yow wala wax demal ci bind kër lu ne wax nañ ko waaye baay baa na ñëw wax lu raw wax ba pare wane ko kon kay kooku mooy jaamiul asraaru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mooy baay ñës radiyallahu moo tax nag ñun ñëpp ci maqaama booba ñu joxañal Ahmad fu lañ war a dem dégg baay maa ngi ko njëkk a déggee ci Ahmad Tijaani mi ñu ne ci benn daayira mu ne baay dafa dem su suda nit ñi xool ko ne ko kanaa yaay sax ndax rëj rëj loo gi ak jox ko leen xanaa yaay maa mu ne déedéet ñu ne xanaa yaay mu ne góor mu ne déedéet ñu ne ko kon loo doon ah loolu ngeen bëgg a xamam ki rek la bàyyi woon ne ñaari kaasa ngi nii bii dafa fees dell ak meew bii fees dell ak ndox te war nga leen a njar mooy def ñu ne da ngaa wuti kaas bu xëpp ñaari kaas déglul wax ji moo tax yonent bi la ñaan dem ba koowe koo fa doon leen di seet si muy wàcc waaye wàcc na mi dina loo ci man maa tay yàlla ji la moo tax bi tay ba jiitu ka ilaay ci tay ba la dikkale yàlla te muy yonent yàlla Muhammad waaye man bu ñëpp bu fa xam de léegi nag mu ne soo leen bëggee xam na def mu ne ñu ne xanaa ñu indi kaas bu leen ëpp ngeen ne bàyyi du nangoo ëpp yonent ci yàlla Muhammad xam ngeen ne bàyyi du nangoo ëpp Cheikh Tidiane kon moo wax li mu doon lan la balaa ngay xam bàyyi nga boole yonent bi Cheikh Tidiane door a xam bàyyi demal sa wax yàlla yonent bi fane man jaama bi man xam naa su mag sufli waaye wajtama fi mashharil xiraaf xollu wi mooy koowee ga mooy sufe gi mooy nubbootu wilaayatu daje nañ ci xaalamul axirati boo koy jàngal nag ku xamul li nga wax ndax am na ñu bëri demul ci say rubbu da koy wax ne ko asamaan ak suuf asamaan rëdd naaw xiinam ba mu ñuul sotti naan ndoxam dënnu yaa ngay dënnu di riir foofu jar naa jàng ndaxte sóoratu Rahd bi bañ naan dënnu dafay gërëw yalla ne dere ni sabbihu rahmi bi amdi rabbihim te nuy nga nan dañuy xay xay de de dañuy sant sen am ak borom dañuy sant sen borom buñ sant do am taw du taw cheikh salim bi ñu ko sank ci waxtanam sant yalla tax doomi di juddu bes bu yalla bindi won sant ci bu juddu doom sant yalla tax garam yi di sax bes bu suuf baye sant yalla ku lol sant yalla rek ko attan sant yalla tax garab yi meñ li fi nek nek fi moo tax yàlla ne wa in tuudu mata laahi tusuha deug deug bu ngeen do lim xewal yalla yi du ngeen ko matal kon nak lu du ngeen ko sant war ngeen koy sant ci xewal yi lolou kat ñaax la pour nga xam ne ku dekké sant deg ci sant gaay dem leen te baña taxaw fa tabiru ya ulil absari lolou alquran wax leen yéen borom bi si xol yi léegi asamaan bu joxee ndoxam suuf ñu toog ñetti fan rek nga gis suuf si wa asraqatil ardu bi nuuri rabbiha waaye loolu ci yow ma xeyam la waaye bu asamaan suuf tawee ndoxam mi ci suuf te laaj a wa fi samaa'i risqukum wa ma tu'aduna fa wa rabbi samaai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiquna yàlla mu ne ci asamaan ci la seen warsak ne waaye xam nga ne warsak wi ci asamaan nu ñuy gisee ne ci la ne xam ngeen ne asamaan bu tawee ndox mi wàcc ci suuf si ndox moom wàcc ci suuf si nag dajale ko léegi nag wàcc gi wàcc ci kaw suuf si dajale ko génne ak gàncax yi suñu suuf si dajee ci gàncax gi loolu tax nga lekk ceeb ne lekk naa ceeb hmm? gaa yi nag bàyyi naa ceeb lu tax ma wax ko ceeb bu góor jigéen ñi togg danañ andi diwlin danañ andi jën danañ andi carotte danañ andi nawet danañ andi supame danañ andi limay bañ man danañ indi xorom waaye ku ca lekk du wax ne nawee neex du wax ne diwa neex du wax ne jëla neex danaan ceeb bi moo neex bàyyi rek mooy safee noonu bàyyi rek ngay mos xam ne neex na kon nag jërëjëf bàyyi moomu léegi nag bàyyi moo jur asbaahi ak arwaax ca xaalamul arwaax ba yàlla feeñee ruux yi ne leen alastu bi rabbikum dañ ne bàyyi moo ñàkk a wax balaa gaa yi door a xam ne balaa lañ war a wax soo ko weddee nag ñu dem caabi na rek nga gis ko yonent yàlla muhammad salaa salaam moo ñu wax ne walillaahi masriqi wal maghribi fa ayna ma tuwaloo fa sama waccu laay inna laaha waasun alim li yonentaa ñu ko jàngal waaye bàyyi ñu wane yàlla su bàyyi dikkutoon ñu pourtant dara beesul de li fi newoon na fi ne kon kooku jar naa wax jërëjëf ji kooku rek jar ñu ba suñ lépp topp xam-xam yi ci la ne min bar bi ni ma ko man ci sama taawi bu ma yedd ci alquran ndax illa allah wa rasikuna yaquluna bul weddi nag taawil yi yàlla mooy raasikoona bi gaa yi ci taawil yi ñun mën a wax yaasikoona fil ilmi ñoom ne amana ñun de gëm nañ ngir xam wun ngir am doon xam ngeen ne loolu de su nit ñi xëccoo fii déglul waareem taalibe baay ak waareem ku dul taalibe baay bu jógee danaan aljana safara aljana safara taalibe baay buy waare lam laa njëkk a wax bul bëgg aljana bul bëgg safara bëggal ci leen moom ci leen moom it doo ko bëgg a bëgg bëggal buntu bi kooku yonent yàlla muhammad wa aatul buyuta min abwaabiha ñëwee leen néeg bi ci buntu bi buntu bi mooy yonent muhammad ca saar naa ngi ne ko loolu bàyyi ko bàyyi laa déglu mu ne jàmbu bii mooy buntam yàlla mooy buntam yonent Aliou Diagne ne bàyyi nee na jàmbu xeebu bii mooy buntam yàlla bàyyi ne ko dee leen waxuma lool buntam yàlla mooy yonent yàlla muhammad ndax tey bii mooy buntab yónent laa wax man maay buntab ku jaarut ci man doo dem ci yónent bi loolu bàyyi ko wax ñun ci ko de kon xam ngeen ne bàyyi buntu bi bàyyi moomu nag mooy xalifa bi jeexal xalifa yi ci cosaan wax naa léegi asamaan ne suuf xaalifa yi war ñuy téen naan asamaan war ñuy téen naan suuf loolu mooy muy wóotoog wilaayati kon nañ góorgóorlu ci dox yi soo doxee ba pare nag li nga doxoon yëpp màbbat nafsakum mabud du la jëriñ ah xam ngeen ne bi ngeen wisee teer mu dem ba sax ba focc gasu leen de bam demee ba ngeen wëri ko xam ne ñor na la ngeen fën mu ne yàlla jëmm ji du mu ci dugg ndax booba ba muy xool gis na ne dana xam ne yàlla dañu leen digal duñ ko def te foog ñu ci moom foog mu nekkee ci ñoom yàlla ne ko dugal ci forcé waaw malaayka yi ne sikaral leen ko malaayka yi mañ ñuusal ko di ko mañ ñuusal ba mu xaal ne carax ci biir jëm jëm aadama bi jëmmu duggee ba ci ndiggi aadama aadama ne gurgu yàkkamti ku liqal insaanu min ajal yàlla ne aadama dalal waaye aadama dalal ruuxu matale la ruuxu nag daw ma ne mel ci biir aadama ba matale jëm yi waaye bu ñàkk suuf doon rek roo ko sotti ba ba nga xamal ne ah wa isa sina badal na amsalahum tabdila loolu la yàlla nekkale nag bi nga nekkee dara yaakaare dara nga mu ne hal ata insani hinun min adari lam yakun shay'an mashkuran hatta al an lam takun shay'an mashkuran sakir ji kay Allah rek la war doon yàlla ya mu ne xam nag jamono doomu aadama du dara mën a tudd kon bi nga ne

dajee ñoom ñaar ci alamul a moo tax aadama ne alhamdulilah booba bokkut ak nag alhamdulilah yi font de moom la bàyyi naan rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman bi yàlla jëlee roo mu ne carax yónne ci aadama alayhi salaam booba la nekkoon aadama jeex na aadama nekkatu fa booba yónne ci yàlla Muhammad moo fa ne lu la koy waxal ba mu demee bëgg sallallahu alayhi wa salaam kon lépp yonent moo ko moom gaañu moo tax bàyyi ne xam ne ko rek xam ne ku bàyyi xool ba ne wa daxaa nii maa daxaa nii war xam ne affaire bi am na lu ca nekk de moo tax na ma ne tudd malaayika yi ci kaw as ci kaw asamaan ba mel ni yonent bi fa leen ci fekk mooy maqaamu yaarifina yi boo demee ci say xumurat bi mu jox la askar yaa ngi commencé nag di baagante ah. taaru hiraa in ak kër xadijatu xadijatu mooy say comme rabbi taaru hiraa in nag mooy kuntu mi ngay dugg yow nag yow yaay kan ñu wéy ñee jaabante ba mu yàgg rek ñu dikk ne la hee xanaa foogu la ne yow ne déet daal mantu nekk de nga demaat ba mu yàgg dem ba nga sapp ba jege say comme rabbi xoola ne la kaay doo seetlu li ngay wax nga ne man de dama fo ni dama bëgg def dof mu rabbi ne la kaay firil la ay baat talal la ko del acci dugal dem ba ngay genn rek ne ndekete ndekete ndekete affaire bi ndekete kat motax xaru ibrahim bay rek ka top topp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sunu susu kat ñepp a waroon a xam ne kii moo jar ndax yonent moo mo a tarbiya yàlla di ko gindee ci Sayyidatuna Xadija ndax bi ko Jibril sonnalee xam ngeen kuy Jibrilam ñemewuma ko wax waaye xam ngeen ne Jibril moo daan andi wahyu bi ci yonent xamal nag yow yaay kan ndax nee nañ la alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada sha'rak wa rafa'na laka zikrak waaye jërëjëf Baay Ñas xam nga ne ubbi nañ sa dënd de ba la ilaha illallah ne ci ñentel mom la ibu juuf naan bu do ki moy borom campagne fim dem ci tay musu yanke musu fay dem dem na ci halam gis fa jenn jaan jile jaanay jaani ci man nak na ci jaan di junne kilomètre gisu bobba gisu ben jenn jaan di ne ko bala nga ma yeen ñu andante ñu andante ba ci paxalu ba paxu bakkanu ngottu jaan ne ci mentel mottu man ko naan ma di abdallah jaamu yalla la ndox mi su ci ma koy gardel dalu bara man lii bu ubbi juuf la yàlla ne xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolab jàmbu gëm fañ wi fañ xañaan rek laay fi hadis bi du loolu yàlla xajut ci asamaan xajut ci suuf waaye xaj na ci xolab jàmbu nangul Cheikh Ibrahima mooy tax yàlla dund bés boo xaritoo baay rek wa taqasallaahu Ibrahima kalila yàlla jàpp Ibrahima muy xarit xarit nag seetlu leen ko nu yendu ci moom fanaan ci yow yonent la waaye moo tax xarit la waaji sopp lay sopp yàlla fa sopp yonent bi bàyyi tamit xaritoog yàlla yàlla soppale ko soppeem bi bàyyi dem di dem bam yàgg nag jëm yonent bi ñëw di moom du ci dara lépp yonent la de léegi nag maa ngi doon wax bi xam ngeen ni imam bi bàyyi lii fii def yëpp moo ko xutba xamul kenn ku xam yàlla naan benn naan la mooy moom boo xamut bu ànd ak moom doo nàndale sëriñ dana la jox ndigal jox la li jaasa waaye pare na ci xàggale gi xam nga ne ci loxoy bàyyi la ne defal li la war rek seetaan bàyyi ñoo yeggali liggéey nga gërëm sa sëriñ nag waaye foofu ngeen xam téeméeri dëgg la moom nga wéy ma ne baay mooy kenn koo xam ne mooy borom o appareil bi mu foto la waaye bi baa ñu xewee nag léegi jeex na technologie Cheikh Ibrahim feeñ na ku ne li ngay am ci sa bopp la jëru xam ci kenn bàyyi mel noonu ku ne jox na la sa càkkute ba mat sëkk jarul jënd sa portable bi ci ngay xootee ci ngay duggee bultu bi ci ngay duggee facebook ci ngay connecté woo ci ngay seetaanee film bi ci ngay seetaanee jàng yi ci ngay waxee ki ne Amérique ci ngay photo ci ngay calculé ci ngay téléphoné ci ngay toog sax lu la neex nga jokk ci lu la neex nga def ci loolu lépp dajale léegi ci portable moo tax bàyyi dajale ñëpp boo ko amee rek xam nga lépp jarul xam bi seetaan rek ci sa bopp li koy firi mooy lan kenn ku nekk ci ñun lu la su sëñ butloo ba nga demee foo ko fekk kon yaay kan yaay kan wasku rabbaka fi nafsika xammee ko rek coow li jeex waaye nag bañ demee ba yàgg ma ne bàyyi waa dugal ñu ci yàlla ñun nag ñu xëy ah wan baay gannaaw ku nekk naan maa moom nangam ñii naan maay xutbu ñii naan maay xalifa bi ñii naan ku ñu wut ci man xamula yàlla ñii naan kenn xamul yàlla haa yow bari ci démb rek nga xew ni faydu bi 1930 la tàkk booba yow jiitu nga sax judd yow nga judd fi bàyyi naan dal la ci nga naan ci ba maan di sant la yàlla tourné naan mana ah mana mana yàlla doy na ci yonent bi doy na ci Cheikh